jàngoroy Covid 19 bi di gën di law bu baax a baax ginnaaw ba ñu seetloo ne deuxième vague bi dafa dikkee ak doole kii di président Macky Sall nag jël ay ndogalam yu mat sëkk ngir yokk bi ba ñaar fukki ne moom la ñu daal di dëgmal waaye loolee tamit askan wi kenn ku nekk di ci indi sa xalaat sëriñ bi moom di xamle ne tamit bu dee ci couvre-feu bi ak état d'urgence bi gisuñu ci benn njariñ ndax kaay heure bu ñu xëyee defub lim bu nekk rek dafay daal di yokku. maanaam tëj gi moom boo dee seet am na solo amul solo li tax amul solo mooy comme comme moom xañ na bawoon nit ñi ne dem seen i yitte parce que borom kër daal moom euh, li yàlla xam doy na ku ci nekk moom xam nga li ngay jànkonteel te maanaam tëj gi moom sa toog sa njaboot yoroo la leen joxit xam nga ne loolu day xaw a mitti waaye dem di yëngu te respecté daal li ko majeure barrière comme li nga ko boo ko yeewoon fee danga boo ko joxul lekk mu dee waxantuma la ak doomu aadama doomu aadama joo xam ne day dundal lu mat ñaar nit ba ñett nit dundal kenn rek daa métti waxantuma la ak dundal ñaar ba ñett. nga di ko tëj kon li am solo ba am solo mooy nit ñi nañ leen bàyyi seen activité ñu dem doxi seen yitte ndax ku nekk li ma la xonte ci njëlbeen ko ku nekk yaay doon sa magum bopp waaye pa nekk naan dañuy tëj nit ñi ak affaire yooyu amul gisuma ci njëriñam. bu ñu sukkandikoo nag ci soxna si nga xam ne mu ngi bàyyi ko ba diwaan Thiès di xam leen daal digle yi nga xam si ne moom la ñuy euh, digle foofee ña ko fa sàmmanteel gisuñu benn jafe-jafe. ñi dégg ndigal moom di fa di fa ñi fa dégg ndigal sonnuñu ci benn yoon. ñu bàyyi tere yi di wéyee ndigal ñu fa ñu ko fa nanguwul yoon bu leen gisee dal seen kaw ñoo ko teg seen bopp ndax tere mu te baal mu gis rek barke sëñ Fallou. sëriñ bi moom dellusiwaat ci couvre-feu bi ak tëj gi nga xamante ne ñoo koy tëj askan wi jafe-jafe gi nga xamante ne mën na leen koo jural ci ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci heure yooyu. mais virus bi kay wax dëgg yàlla nee nañ dafa sew dafa gaaw a walaate te léegi mënuñoo xaajale nit ñi ci bëccëg bi kon wax dëgg yàlla xam nañ ni bu dee dee wàll rek nit ñi dinañ ko jëlee ci marché yi wala jëlee ko ci école yi bu guddee ñu yóbbul seen waajur yi ah kon xam nga kon loolu amul benn njariñ léegi li ñu mën léegi li ñu ci lool nag li muy li muy indi mooy ñu doon liggéey guddi am na ñu bari guddi la ñuy liggéey lu mel nii tey ji am na maire yoo xam ne tamit ñu ngi ci koñ yi dañ daan jaay ay laax wala ñuy jaay ay reer léegi loolu mënatuñu ko te kenn dimbaluwu leen te ci loolu lañ yaakaar pour fajal seen njaboot mais ñoom ñu koy def xamuñu loolu wala bu ñu ko xamee tamit teg nañ ci seen tànk parce que am na ci ñoo xam ne tey jii dara lañ mais démb doonuñu woon dara yaa ngi dégg xam nañ luy jaay caaf xam nañ lan mooy gardien xam nañ lu bari mais lépp dañ nañ ci seen tànk léegi yaa ngi dégg parce que dépassé nañ ko mais nañ yërëm ñu ci toll nag waa ji moom dellusiwaat nag ci mesure barrière yi nga xam si que docteur yi digle nañ ko ngir ñu sàmmonteeg moom euh, te bàyyi nit ñi ñu mën a liggéey delluwaat seen bërëb bi liggéeyukaay yi mais normalement su fekkee ne sax yow da ngaa amul amul kartanu hmm? soo dee soo dee soo dee tëj nit ñi nga jël kenn ku ne nga mën a jël numéro am envoyé ko ni ko jëlal lii temps bi ngay toog nga dunde ko kooku waroo koo téye parce que joo joo ko liggéey fayoo ko benn salaire joxoo mu lekk joxoo ko mu naan néewoo ko lii jàpp ci nga toog ba yëf yi féex kooku amoo benn droit tëj parce que la muy lekk joxoo ko ko bu waree faju fajoo ko njàngum doomam moo koy fay mooy joxe dépasse am mooy defal boppam léppam gouvernement defalu ko dara kooku booy jël ay mesures boo ko mënul boo ko mënul xool fan yi muy toog nga jël ko ni ko lii toogal nga jàpp ci soo ko mënul jël nga koy def ñi koy def tamit ay Europe yi noon la ñuy def noonu la ñuy doxalee mais ñoom comme amuñu doole. te fii feebar bi non normalement li muy évoluer fële évoluer ko fii waruñoo jël mesures yi ñu leen di jël. mu mel ne nag jamono ji ñu toll askan wi sonn nañ lool ngir jafe-jafe yi nga xam se ne moom la ñuy jànkonteel nag ci seen bérébu liggéeyukaay waaye état d'urgence bi nga xam se ne teg nañ ko mu ak couvre-feu bi ñu gis ne gisuñu ci benn njariñ ba tax na tamit ñuy ñaan kii di président Macky Sall ngir mu gën a ñaax askan wi ñu sàmmonteeg digle yi nga xam se ne kër docteur yi digle nañ ko te ñu teggi couvre-feu bi